الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد وفي نيغلين وخ السلام عليكم ورحمة الله بلين أه، leen dalal ci suñu jotaay bi nga xam ne mooy jotaay fii ci dégg diine tàmbali woon nañ ko ci ay jataay taanoon ci li aju ci wàllu faatixatul kitaab ak seetantal yoo xam ne defoon nañ ko ci di ay taxaw rek ak ay géndeku ngir gën a bàyyi loo xel nit ki nga xam ne mooy jàng saar bi saa su nekk buy julli di teewlu li nga xamante ni moom la saar bi di wax ak li mu ëmb ci ay dëgg-dëgg maanaa ci sens boo xam ne dafay tax nit ki gën a am jeexital ci li nga xam ne mi ngi koy jàng loolu mooy suñu objectif ci jataay yii nii tey ñu jëlaat yeneen saar yoo xam ne ñetti saar la yu dend nekk ci mujjantalu kaamil bi ñu leen di tuddee al muawidat muy saar yi nga xamante ne ay saaru mustuwaay la noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalam tuddee woon ci xadis bi bu njëkk ci ñoom saar yooyu mooy suratul ixlaas suratul ixlaas dañ ko tuddee muy saarub sellal bi nga xam ne day sellal yàlla ci lépp loo xam ne ndend la wala maas la wala bokkaale la waaye moom saar bi dañ koo sellal ngir yàlla dañ koo jagleel yàlla suñu borom ndax waxee su si leneen lu mbiri borom bi subhanahu wa taala ci melal ko ak màggal ko saar bi ci loolu rek lay wax saar bi yàlla subhanahu wa taala tàmbale ko aoudu billah min alshaitan rajim bismillah rahmani rahim mi ngi ko tàmbalee qul huwa allahu qul huwa allahu noonu la ko tàmbalee mu nekk ne yonente bi alayhi salaam yàlla daf ko digal ne ko waxal mu mel na comme daa am ñu muy adressé parole daa am ñu muy waxal ñu muy waxal mooy doomu aadama yépp ñi nga xam ne ñoo doon laaj ne yonent bi ñëw di di woote ak di wax nit ñi nañ jaamu yàlla te wéetal ko loolu muy woo nit ñi ñu jaamu ko lan la bokkale ka ci doon nañ ko ko laaj naan ko insib lana rabbak yahud yi laaj nañ ko ko ak nasaara yi ne ko sa boroom bi nga wax ne moo sàkk lépp moom ku ko sàkk ana mbiram nu mu mel laaj nañ ko ko kon dafa amoon ay questionnement yu am ñuy posé wu question ci kan mooy yàlla jooju muy wax ne moo sàkk mbindee fi sàkk lépp lu am moom rek la ñu war a jàmm yàlla ne ko waxal ngir tontu leen waxal tamit ngir xamale kooku mooy kan même bu fekkee laajuñ la ko mooy boobu baa huwa dellu ci kooku ñuy laaj mooy kan nga ni leen huwa kooku allahu mooy yàlla mu jëfandikoo lafdul jalaala allahu bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci al ilahiya al saabita al xaqa lahu subhanahu wa taala mooy mu jëfandikoo turam boobu nga xam ne mooy baatu allahu di yàlla di nga xam ne li muy tekki di ko wund mooy moom mooy yàlla ji ñu war a jaamu wara sul jaamu keneen ku dul moom mu bi mu koy xamle ci noonu la ko xamle wala nga ni huwa li am ba am muy doomeeru shan allahu yàlla ahadun kenn la kon immaa nga ni moom allahu mooy yàlla ahadun di kenn wala nga ni huwa li am ba am allahu yàlla ahadun kenn la ñaari déggin yooyu lañ ci am bi mu jëfandikoo allahu boobu nga xamante ni day saxalal yàlla nekk gi nekk ki ñu war a torox loolu war koo jaamu war koo màggal subhanahu wa taala daf ne yàlla jooju ahadun kenn la ci loolu muy melokaan boobu mu melawoo di melawoo ne moom rek lañ war a jaamu mu ne kenn la ci subhanahu wa taala kenn la mooy kenn du moom kenn melul ne moom kenn deful li mu def kenn mënul li mu mën kon huwa ahadun fi dhatihi wa ahadun fi sifatihi wa ahadun fi afaalihi kon bu boobaa ahadun fi xuquqihi mooy ne moom yàlla subhanahu wa taala kenn la ci jëmmam ji du ñaar kenn la mu jëfandikoo ahad ñaari yàlla amul benn yàlla moo am loolu dina ñëw ci kanam ci li nga xamante ni mooy lam yalit walam yuulat kenn la itam ci ay melokaanam kenn melul na yàlla subhanahu wa taala kenn amul dayoowu yàlla subhanahu wa taala kenn la itam ci lim mën a jëf ak mën-mën bi mu am ci dundal rey faat wërsëgal xettali yooyu yëpp yàlla rek moo ko mën subhanahu wa taala kon ahadun kenn la mu nekk baat boo xam ne wute na ak waaxidun ndax danga nga naan gisuma kenn kenn ñëwul lii kenn mënu ko moom kenn la mooy kenn du moom ndax boo nee lii kenn mënu ko mooy mbooloo mépp buñ dajaloo woon tam du tax ñu mënu ko waaye lii boo nee lii benn mënu ko benn nga jëfandikoo baatu benn mooy benn nit mënu ko mooy kon xëy na ñaari nit mën nañ ko wala ñetti nit mën nañ ko boo nee gisuma kenn mooy gisuloo kenn kenn ñëwul moo xam mbooloo la wala benn nit la boo nee gisuma benn nit gisuma benn nga jëfandikoo baatu benn xëy na kon gis nga ñaar wala ñett kon kenn dafa dàq lépp loo xamante ne bi dafay mën a ñëw di méngoog yàlla subhanahu wa taala moom kenn la mu jëfandikoo ahad bi nga xam ne ci waxat la jógee mu daal di ciy teg ne kon du mu waxee ne kenn la subhanahu wa taala loolu dafay dàq lépp loo xamante ni ak maat la lépp loo xamante ni ak ñuroo la lépp loo xamante ni luy dal borom bi subhanahu wa taala la ci melokaan yoo xam ne melokaan yi wàññeeku la nekkul ci yàlla subhanahu wa taala waaye allahu mu daal di ci teg ne ab samad mu jëfandikoo waat baatu allahu te waxul ne as-samad mu def ko naat wala mu ne waxaat ne huwa samad déedéet mais daf ne wax dafa takkaraaraat lafzul jalaala mooy ginnaaw bi mu leen waxee ne leen yàlla kenn la ba noppi ci jëmmam bi dafa amaat leneen lu am solo mooy ne allahu samad mooy ne yàlla ko doylu la koo xamante ni soxlaalul kenn dara dañ daan wax as-samad man laa jawfa lahu moy ko xamanteni amul vide bu nek ci biram bo xamne da koy soxla diko remplir nga xamne da fay nek muftaqir ila ghayrihi nga xamne da fay soxla lenen do mo adama loolu la ko yàlla binde motax mu nek être bu faible mooy dafa am vide bo xamne da fay soxla diko remplir yàlla amul ben vide bu muy soxla remplir motax soxla lu ken dara motax huwa al-ghani moy kii doylu mo subhanahu wa taala kon huwa as samad dina wax tamit as samad mu nek faal bi ma'na maf'ul moy man yasmudu ilayhi al-khalaiq fi hajatihim moy yàlla mom la ñëpp di jublu subhanahu wa taala ci sen aajo yi ñu am ngir mu fajal len ko ndax mom moy sang bi nga xamanteni ak sang gi mu nekk sang dafa mat sëkk moy ak sayyidul kamil fi sududihi subhanahu wa taala moy ne yàlla subhanahu wa taala moy sangu ñëpp kon ñëpp ci mom lañuy delu ngir luñu am ci ay problème ak ci ay jafe-jafe mom yàlla mo fajal len ko kon mu jox ko melokaan boobu nga xam ne melokaan yi jëmm la ju jëm ci yàlla juy wane ak matam subhanahu wa taala kon kenn du moom yàlla kenn la subhanahu wa taala dañ koo war a kennal ci ay yelleefam ci ay melokaanam ci li nga xamante ni subhanahu wa taala itam moom moo ko ay jëf mooy jëf yi nga xamante ne yàlla rek moo ko jagoo yàlla rek moo ko mën deesul jël loolu di ko jëmale ci keneen ku dul yàlla waaye tamit allahu samad mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa doylu te ñëpp a ko soxlaal ñëpp a ko aajoo léegi bi mu waxee loolu mën nga wax ni saar bi fa yem ndax dañuy wax ne leneen li ci des dafay tekki as-samad daanaka mooy li mu wax ne lam yalit walam yulat mu jëfandikoo ko bi siixatil maadi ndax ñi ko ko tuumaal di ak wàññeeku wàññeeku boobu ñu ko ko ñu ko tuumaal yàlla dañu wax ne lu mu def la ba noppi waxuñu ne dina ko defi ji moo tax mu ne lam te waxul ne lam yalit mu ne lam yalit mu nafi ko fil maadi ndax tuuma ji lay tontu mooy ne bu fekkente ni moom yàlla noonu na mel nekk kenn du ñaar moom borom bi subhanahu wa taala ku doylu la soxlaalul kenn ñëpp a ko soxlaal kon di nga mën a comprendre ne lam yalit moom yàlla subhanahu wa jurul mu jiital jurul ci juruñu ko doonte nit ki ki la jur mooy cosaan ci yow balaa ngay mën a jur kon moom la waroon jiital li tax mu jiital ne jurul laata muy wax ne juruñu ko ndax ñi ko tuumaal liñ ko tuumaal mooy jur tuumaaluñ ko ne dañ koo jur waaye liñ ko tuumaal mooy jur yàlla subhanahu wa taala wane ne jurul mooy lenn jógewul ci moom bu amoon lu jóge ci moom day nekk yàlla joo xamante ni dafa daal di wéttali yàlla nekkaat keneen kon boobaa kooku yàlla lay doon moom tamit ni yàlla nekkee yàlla mu nekk ñaari yàlla ñaari yàlla mënul am loolu la dàqoon ci axat bi kon ñaari yàlla mënul am ba noppi tamit yàlla soxlawul di jur ndax nit bu juree dafay jur ndax dafa soxla dafa aajowoo am doom dafa aajowoo ku ko mottali yàlla soxlawul loolu yàlla dafa doylu ndax moom mooy as-samad subhanahu wa taala moo tax bi mu waxee ne wa qaalu ittaxada allahu waladan daf ne subhanahu wa alxani bi mu waxee ne dañ koy tumaal moom yàlla ne dafa am doom daf ne tudd na ak sellam yàlla mooy ki doylu mooy alxani loolu la yenn ci borom xam-xam ku mel ibn ibnu jusey fi tashil lañu wax ne yàlla bi muy dàq nisba gi ñu koy mooy askanale gi ñu ko askanale doom bokk na ci méthode yu mu ko dàqee ci alxuraan mooy wane ne moom daa doylu soxlaalul kenn dara subhaanahu wa kon lam yalit mooy amul lu jóge ci moom yàlla loo xamante ne da naan lii geneen yàlla la duñ koy askanale te loolu nekk wax jox xam ne wax ju ñaaw la nekk wax joo xam ne wax ju yàqu la xëy na loolu tamit dina tontu yenn jullit yi nga xam ne ngir màggal suñu yonante alayhi salaatu wasalaam ak bëgg a rëyal mbiram puus na leen yóbbu ci dem bay wax ne yàlla dafa jël ci leeram bu ñu ci nammee leeru jëmmam loolu xata njuumte la ndax wax ne yàlla jëmmam di leer la loolu ci boppam njuumte la amul benn tegtal bu ko wax jëmmi ci boppam mbindeef la ci mbindeefi yàlla yi kon wax ne loolu mooy jëmmi yàlla loolu problème la bu fekkente ne da ni leer goo xam ne yàlla moo ko sàkk jël leer googu sàkk ko ci wérul waroon ak li alquran wax sunna wax ko ndax li alquran ak sunna wax yëpp mooy yàlla sàkk na doomu aadama yi sàkk mbindeef yi di nit mu sàkk leen ci suuf ñoom ñëpp ci aadama lañ jóge te suñu yonante alayhi salaatu wasalaam bokk ci ay sëtam yàlla teral ko defal ko mu gën a yëkkatiku gën a màgg ci bépp yonante boo xam ne yabal na kon loolu tamit dina delluwaat ci li yàlla wax ne lam yalit moom subhaanahu wa taala jurul ak bépp façon jur noo ko waxee ci wàllu jur mooy lu jóge ci moom imma mu jaar ci nit ki ñuy tuumaal di wax Mariam yàlla jaarale ci moom doom jooju nga xamante ni moo ñëw ci kaw suuf taala allahu an dalik nga ni jur gi nga xamante ni liñ ci namm mooy am lu jóge ci moom loo xamante ni dafa beru nekkaat jeneen jëm ci moo xam lu mu dindi ci moom def ko mu nekkaat jeneen jëmm loolu tamit amul moom kenn la ni mu nekkee kenn am na ci gëstukat yi ñuy wax ne ahadun li mu tekki mooy yàlla du ay xaaj yàlla amul ay xaaj maanaam ngir dàq melokaane yàlla yi yàlla du ay xaaj mais loolu wérul xaaj kenn du ko tekkee ko loo xam ne amul ay xaaj loolu wérul di ko jëmale ci yàlla sax xeetu wax yu mel noonu suufe na ba tax na li gën mooy nit ki mooy xeetu wax yu mel noonu ki ko daan faral di wax mooy Jahm ibnu Safwan doon waa joo xam ne daan na wax ci wàllu pas ci wàllu melokaane yàlla yi wax joo xam ni dëppoowul ak xeetu wax yu mel noonu kon qul huwa allahu ahad waxal ne yàlla kenn la kenn la ci jëmmam ci nekkinam bu ko defee ni jëmm ji nekkee kenn nekk jenn jëmm yoo xam ne amul lu méngook moom wala lu mel ne moom ci amam am am goo xam ne mënut a ñàkk te am gu jiitu la goo xam ne amul fu mu tàmbalee melokaan bépp boo xam ne tamit dafay topp jëmm boobu dafay mel ne jëmm jooju jël melokaan yi jëmm jooju kon kenn la ci ay melokaanam subhanahu wa taala te itam kenn la ci ay jëfam kenn la ci ay yelleefam ay àqam ak ay sañ-sañam subhanahu wa taala ci jaam yi ñu ko war a jaam te loolu moom la jëfandikoo ci ismullahi mu turu yàlla tim jëfandikoo di allahu beneen bi ci des tamit mooy ne allahu samad mooy ne yàlla moom mooy ki doylu yàlla mooy ki nga xam ne moom la ñëpp soxlaal subhanahu wa di fajee seen i aajo ci moom subhanahu wa taala mooy lépp lu ñu am ci aajo rek buñ soxla ci yàlla la ñuy dellu ngir mu fajal leen ko ci ginnaaw loolu la soo ko jógee nag mën nga wax ne tafsil bu muy defaat tafsil yëpp di leeralaat ci ginnaaw bi dafay delluwaat ci li mu wax ne ahadun newaat samad loolu li ci njëkk mooy jurul subhanahu wa taala ndax bu juróon li mu jur tey jóge ci moom nekk yàlla yàlla jurul walam yuulat te itam juree ko mooy jógewul ci leneen ndax bu jóge woon ci leneen nga ne tamit mook loolu ñoo bokk espèce boobu ko defee loolu tamit day war a tamit ñaari yàlla am lenn ci loolu amul kon jurul juruñu ko kon loolu moo tax mu mën a nekk kenn subhanahu wa taala léegi bu nee lam yalit walam yuulat da ci daal di teg ne walam yakun lahu kufuwan ahad kufuwan wala kufuwan ahad إما كفءا ولا كفوا ما أنا برام سبحانه وتعالى أمل نولة أمل كنكم من لمن أمل ما من ولم يكن له أن أحد توخل ولم يكن أحد أن له لم يكن أحد له كفوا أمل كنكم خمنتني من نكون نكل ما amul kenn koo xamante ni mën naa mel na yàlla subhanahu wa taala loolu nekk loo xam ne dafa mel ci naf yi ubbee ko baatu ahad ci isbaat ci isbaat bi mooy huwa allah ci jeexital bi mooy kufu an ne ahad huwa allahu ahad la ci tegoon bi mu ne mooy yàlla daf ne ahadun kenn la ci njeexital bi bi muy wax ne amul benn maas ahad la jëfandikoo ci dàq maas amul kenn bi ñu waxoon sànq boo ne gisuma kenn mooy kenn kenn kenn nga gisul bu mu ne timbat amul kenn koo xamante ni mën na nekk maas nekk maas ñeel yàlla subhanahu wa taala ñu koy méngale di ko gam-gamleeg yàlla ci mel ne yàlla wala am sañu sañ-sañu borom bi subhanahu wa taala amul mu nekk saar bu màgg boo xamante ni gàtt na ci jàngu ko naam ndax qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad loolu tënku na ci wax waaye yaatu na loolu ci maana kon suratul ikhlas mi ngi noonu nekk saar boo xamante ni saar bu màgg la suñu beneen jotaay insha allahu taala dinañ ñëwaat ci njàngat yi nga xamante ni mën nañ ko ci am alaykum wa rahmatullah centre daaru di yëngatu ci médecine islamique ak bu traditionnel ñoo leen doon baaxe seen émission seetlu alquran Ma di alquran géej naa ku ñëw danga naan sama yiw wi day baawaan ku ma seetlu gis ci limaan man yàlla mooy ki ma waax maa gën ci lun ma sa waax සමලේපන දුමලා සම්ලේනමයි කුර්ආන් ලර්ලා ගුණම් ජිර්නීත් කුමජා පුදෝතෝවේ